am na yeneen jotaay yoo xam fekkewu ko waaye nett lañ ma ko ni war ngaa góorgóorlu parce que ministre nee na président de la république euh, lettre de mission bi mu ko jox bokk na ci nanga nga yittewoo daara yi ak njàngum lislaam mi ci Sénégal kon loolu li ñu wane rek mooy muy président république muy ministre de l'éducation muy Cheikh Omar Anne kenn ku nekk am nga yéene ngir taxaw jàppale njàngum arxaan mi ci Sénégal ak njàngum diinam jëm ci kanam parce que loolu dafay cadré wu wala dafay bokk ci lii nga xam ne sasu réew mi état bi la kenn ku ne xam ne ne éducation mission régalienne bu état la bañ na ko ba Sénégal def droit à l' ci constitution bi droit à ñëpp war a jàng dafa am obligation scolaire de ans yoo xamante ne nii dañu war a jàngal bépp doomu Sénégal te njàng moom ñu ko war a jàngal kenn waru koo ga kenn am kenn waru ko imposer kenn kenn ku nekk yaay xool la nga bëgg a jàng loolu yaakaar naa mooy sens diversification te l' offre éducative fexe ba képp ku nekk ci réew mi di doomu réew mi boo bëggee jàng nga jàng waaye kenn du la forcer benn type wala benn ordre d'enseignement yaakaar naa loolu moo taxoon ci jamono yëpp passé ci EDB 10 bi ñu doon wax procéder à à la demande non à l' par l'offre sa à dire dikk rek li ngeen di jàng xewi na léegi ku nekk da nga koy laaj la mu bëgg jàng nga xool lan mooy sookul bi nga xam te ni ñëpp ko war a bokk ci réew mi pour tabax un bon citoyen yu bokk ko mais kenn ku nekk par rapport ak sa spécificité nga fexe ba jël en charge say préoccupation yoo nii mooy tax yow nga nekk yëg sa bopp ci biir bi yaakaar naa loolu léegi la ko IEF doon junj ci li ñuy tuddee académisation fexe ba région bu nekk ñu jël seen i spécificité transformé ko fexe ba yar ci seen i xale ñu ëllëg ñu mën a tekki ëllëg ñu mën a dem fa ni ñoo jàllale message boobu ñoo jàllale boobu patrimoine culturel yaakaar naa ni loolu dafay cadré bu baax a baax li ma wax rek c'est en phase avec les orientations majeures du du système éducatif sénégalais kon bu ci amee ay benn localité wala ay nit wala ay kilifa diire yu jug wuutu état ci boobu liggéey yaakaar naa état mën na lu dul accompagner leen état mënul leen jàppal leen te yaakaar naa ne boobu dynamique ci la ministère bi nekk du tey wax naa fi léegi ni euh, depuis état généraux 81 la ñu gisoon ñun ci résolution yi booba xale la waaye ñoo ngi jàng résolution ba léegi ñu ne dañu war a jël en charge éducation religieuse fexe ba jàngal nit ñi seen i valeurs socio-culturelles loolu répété ci Aziz yi wax dëgg yàlla Euh, ba jamono yi passé maa ngi fàttaliku ji vers des années 2017 2018 bi bi ma ànd ak sëñ Baytaam ñëw fii ci benn mission ñu visité daara yi fi nekk visité école Elzar yi fi nekk bi ñu toogee dañu nañ mettre en place benn groupe de travail pour ñu xool naka la ñuy liggéeyee jàppale waa Touba ci wàllu njàng ak jàngale yaakaar naa loolu pour wax ni yàgg naa nekk ittey ministère bi ñu ci liggéey te nag daf fee fekk itam yitte jooju ci biir Touba fekk fi yéen jooju ci biir Touba yaakaar naa ne képp kuy xool Matlabul Fawzayni li nga xam ni borom la mu bëgg mooy jàng ak jàngal tegu ci njub képp kuy xool ay bindam ci téere yu dul jeex xam na ni euh, jàng ak yitte yittey jàngale ak tegu ci njub moo ko yitteel moo tax ma ni Touba mën nañu ko considérer comme laboratoire incha allahu taala dinañ li ñu fi gis dañuy def euh, rapport comme ni koy cheikh bi waxee léegi compte bu dëgër def ay proposition même jox ko kilifa gi rendre compte l'autorité bu ko defee incha allah dina instruire ñi mu war a instruire koo xam IJEF la ci rapport beeg continué ñu boole ko yóbbu ko ñu def rapport mu nekk validation moom teen nii incha allahu taala yaakaar naa li ñu bëgg lépp nañ ko ci am kon ñun loolu mooy suñu cër ci jotaay bi vraiment fekkee nañu ko rafetlu nañ ko kontaan nañ ci ànd nañ ci bëgg nañ ci te dañ def kontaan ministre bi moom mooy autorité bi incha allahu taala te yaakaar naa dina la woo balaa yàgg parce que mi ngi waaj a ñëw Touba wax na ma ko waxoon naa ko may commencé nee na ma préparel ma euh, benn proposer benn date pour ñu ànd dem Touba pour mu jàkka saafante kilifa yi nemmi konteeg ñoom bu ko defee euh, ñu xool naka lañ leen di jàppale si wàllu liggéey boobu